ko dem beeg dikk bi amul ñu gis ci yéen benn communiqué bu génn di invité militants yi ñu ñëw euh, libéré ko loolu aussi est-ce que c'est pas c'est pas c'est pas trop. non xam nga bunkeriser këram mise en en résidence surveillée. Mhm. y a que un juge qui peut le décréter. est-ce que yow en tant que journaliste tu as eu une quelconque information qu'un juge a mis le président Ousmane Sonko sous résidence. amul ci amul amul amul. donc pourquoi ñu koy def. c'est un droit te le fait que l'on appelle les militants à ñu def tout pour que résidence surveillée boobu mu deñ c'est que ñun on considère que tey quelle que soit la personne quand tu es victime d'une injustice chacun de nous doit se mobiliser mm-hmm. parce que boo nekkee ci injustice ñu seetaan la suba ñun ñooy dund injustice bon tey docteur la situation est relativement calme malgré li xew lépp démb Ousmane Sonko actuellement il est mal en point mu ñu noonu mais yéen leen pas de point de presse pour dénoncer euh, pas de manifestation lan la daa am lu ngeen di préparer vous vous êtes résigné wala li ne ci biti moo leen tiital. Mamadou Awa fii Sénégal la résignation mënu fee am point de presse. Mhm. waxtu wax moo jeex. Hmm? wax jeex na. waxtu wax moo jeex parce que dénoncer combien de fois on a dénoncé on a dénoncé on a demandé aux Sénégalais de prendre leurs au personne ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu wax ak ñu ñu war a waxal ndax jàmmi am si réew mi. Mhm. mais dañoo gis ne à la sax booy wat point presse dañ leen wax yéen da ngeen di wax rek da ngeen di wax vous victimiser kon. wax mais ce silence wax jaratu ko xam nga lan moo am. daa am lu ngeen di préparer. non y' a pas de quelque chose de préparé que soit la seule chose qui se prépare mooy chaque sénégalais qui que tu sois. ak mhm. foo mënta nekk constitution bi may na la le droit de résister te ñun lu ñu wax dafa leer. on ne contrôle pas les forces de défense et de sécurité. Mhm. on ne contrôle pas la justice. mais comme que loi bi may nañu quand nos droits sont violés et bafoués de résister on résistera. mais docteur yéen tamit tamit seen seen de résister boobu est que yamul ci ay wax rek parce que Ousmane Sonko à chaque fois bu ñu koy néewal doole on voit personne à ses côtés Guy Marius Sagna moo fay nekk di rey boppam mais yéen les les les say lieutenant fan fan ngeen pensez la comme ça. ana ngeen no dama bëgg a xam. non xam nga parce que quand on voit Bassirou naan yóbbu nañu xamuñu fu nekk les gens se disent bu nekkoon ci wetam dina xam fan la nekk. non xam nga da ne. wala ngeen bañ a mettre tous les œufs ci même euh, les œufs dans le même sac ou quoi ñun ñun xam nañu lu ñuy def te ba fu ñu toll lu ñuy def ñu ngi koy defee lu ko war a defee. Mhm. ñu ngi koy defee du ko war a defee léegi nag les analyses extérieures ak externes bu nga xam nan la ñuy def ak ak lu ñuy def bu fekkee am na lu ñuy def ak wala am lu ñuy def ak loolu bàyyi nañ ko ñële ñun suñu biir lu ñuy def xam nañ ko nu ñu ko war a defee xam nañ ko bu jotee bu ñu koy def xam nañ ko kenn duñu ko